jërëjëf mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV tey fekk si nañ boroom xam-xam war a siq moom waxtaan wu yaatu bokk na ci li nga xamante ni teg nañ ko ci kaw Ousmane Sonko euh, Serigne Sarr porté plant ki nga xamante ni moom mooy Atepa euh, Serigne bi ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi ñu soog a waxtaanee li xew ci dëkk bi. aouzu billah alhamdulillahi alladi qad awqada nuural huda fi qalbi kulli man hada rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli yaa himmata cheikhi uxduri lana bi hazal mahdarin wal taati fiihi bi nazaratin taati lana bi safarin mbokki jullit yi mbokki réew mi mbokki bitim réew yéen ñi safoo di topp sit bu mag bi di MPROD TV yéen ñëpp kenn ku ci nekk foo man di nekk ak noo fa man di nekkee rek maa ngi la fay fekk di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu te di la ñaanal jàmm bismillah gis nañ li ñu teg ci kawam ban jàngat nga ci am. waa jàngat bi ma ci am mooy eh, yàlla moom gëmmul nelawut laa taaxusu sinatu wala nawmun te Ousmane Sonko ñëpp d'accord nañ ne depuis deux mille vingt et ba léegi façon buntu xatal bu ne ñu ngi ko koy teg jëmale ko ci kawam. te loolu nag moom mosta onku mosta daw mosta yokkat parce que yàlla moo ñu waxoon ci alquran ne inna allaha maa sabirin man yàlla maa ngi ànd ak muñkat yi waaye li may wax fu alaaji dégg mooy Ousmane Sonko gisuma mbindeefam yàlla mu ko mën a teree ci mu ko mënee teree bokk ci élection 2024. mais foo ko teg fi ma koy teg mooy dama ko gis. ni ma ko gisee dama ko gis ci xalwa yàlla wan ma ko. te gëm naa ne man yàlla duma ma wan loo xam ne. lu loo xam ne da du nekk. parce que final biñ koy final bëri na. te gisee kenn kenn waxu ci ñëpp a ngi na teg. kenn ku ci nekk ñi ngi la jox xaalis nga ne tekk tekk ak moom te yàlla bëggul kuy final doomu adama te final bi na ñëpp gis nañ ko waaye nag mi ngi muñ rek di muñ waaye muñ goo gis wala natt boo gis parce que yàlla moo wax ci alquran nag ginnaaw jafe-jafe la ciy tegu mooy yomb-yomb mi ngi ci ay jafe waaye bu muñee gën a muñ incha allah bi xalilaa dina am bànneex moom ak njabootam. incha allah Serigne Ahmed Khalifa sa baay bokk ci ñi dàq faj rab ci dëkk bi tey rab bëggoon naa ñu dugg ci andi ci ay leeral nit ku rab jàpp lan moo ko mën a génne ci moom. waaw alaaji dégg euh, jamono dafa toll foo xam ne faw ñu dimbale doomu aadama yi amut benn doomu aadama bu mën a fajal nit soxlaam te taqoo ak ragal yàlla tey bëri na ñuy wax ñoo xam ne lenn ci ragal yàlla nekkul ci ñoom kon client bii jël xaalisam di koy joxe war nga koo jox koo xam ne dalay leer ne kii moo la gën a jege yàlla mbiram rab loolu dama ne woon dootuma ci wax waaye rab ni muy def ni muy yàqale doomu dafa garaaw léegi garaaw boobu na pour nga xam ko alaaji dégg faaw nga defal nit ki seet bu wér wala nga defal ko li listixaara bu weer loolu ci ngay sukkandiku mën a xam nit ki ban façon rab moo nekk ci ma ak yan gàllankoor la koy gàllankoor ak nan ngay nan ngay def bam bam tàqalikoo mu ci wàllu gàllankoor. kon nit ki faaw muy seetlu. ah seen mënta ñàkk di parce que buntu ñaan ñaan tey bu doon néeg la. bunt ba mooy seet wala li sa xaara man ñaar yooyu dama ciy defal nit rek faj ci soxlam ci irma jamma ci wàllu sarax ku cat jàpp ku liggéey ku ku rab jàpp ku liggéey di yàqal nu man di toll incha allah bi hawlillahi wa quwwati bu ma ko xoolee ba am ci lu ma leer bu ma ci duggee yàlla faj saajo man nag alaaji dégg neexumaa jëflanteeg ah. parce que ñaan gii may def neexaluma ci sàmm neexaluma ci demba mission boo xam ne dama cee fekkoon samay baay fekk fi samay maam damay dem bàyyi fi samay doom képp ku bëgg fajog aajo nag ci zahir ak ci baatin képp ku yàgg a dem ci sëriñ ñi lay nax nga dem ba jàpp ne ñaan yàlla amul wala nga dem fu ne mënuñ laa gis ci wàllu seet mënuñ laa gis ci wàllu bu ñu déggantee incha allah bi laa waxoon ma xooloo kenn du ko dindi. bokk na ci li ngay liggéey gis naa ne garab ak reen bëri na ci reen lu bëri ay njëriñ la ñu ñëw ci reen yi ci leget yi. waaw reen yi moom alaaj dégg buñ fi nekkoon di détaillé defe naa ne fii la ñuy fanaan. waaye nekk na liggéey boo xam ne ñun ci boppam ñoo taal suñu oto dugg ci àllu saalum bi utal ko suñu bopp ñëw pare pour dimbali si doomu aadama yi mu nekk loo xam ne day dem fu ne ci biir réew mi parce que euh, nit ñi léegi faw ñi dellu ci li fi mag ñi bàyyi woon ren yi nga gis moo xam ku yor néew kàttan la moo xam ku yor hémorroïde la moo xam ku yor ndoxum siti la xataa ku tëju sax bi xawlilaay wa quwwati buñ xamee lu la tëj buñ la ci joxe yàlla yàlla saafara ko secret alal secret wërsëg. waaw wërsëg moom alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy liggéey ci alquran ci ay ayat yoo xam ne mi ngi mi ngi laxasu ci alquran lu demee ni nasrun min allahi wa fatu xaribun wa bashiril muminin inna fataxna lakka fatan mubinan dañ ciy taal doomu aadama la xalqu samawati wal ardi akbaru min xalqi naasi walakin aksara naasi dañ ciy taal doomu aadama alam nasarax am na lim buñ koy bind mën nañ cee taal doomu aadama mu mu tàkk jëppét ci wàllu am am Euh, yàlla alxuraan ji bàyyu dara ñun nag dañoo nekk kilifa yoo xam ne suñ lépp alxuraan la parce que yàlla moo ne maa farat naa fi kitaamin shay'in waaye nag booy ñaanlu demoo ci ku la jege yàlla sa xaalis ngay yàq waaye doo fa am faju aajo problème bi yëpp ngay dégg sëriñ si ñi ngi joxe ren ñi ngi joxe sunguf ñi ngi joxe ñi ngi joxe cangat waaye pourquoi mënta jëriñ alaaji dégg mënta jëriñ jaamu yàlla yi ndigal moo ci amut ndigal la ak sekkara ba ak sirru ba lañ kon euh, loo gis métier boo gis faaw nga am ci ndigal ah. ndigal loolu moo lay permettre lépp loo ci defal waay mu barke. sëñ bi euh, dégg naa ko yàlla may nga euh, ko mën a nopp nga ci wàllu góor ak jigéen. waaw alaaji dégg nopp moom walilah alhamdu yàlla mi ngi ma ci suturaal. Mm. man waxuma sax góor waxuma nit ku weex ak waxuma nit ku weex wala nit ku ñuul ak nit ku ñuul mais na nga doon doomu aadama. Mm. na nga doon doomu aadama yor ñaari tànk. di dox koo bëgg ma noobal la bi xawlilaay wa quwati bu ma xamee turam mën naa koo noob te fii ma toog du fi jugee parce que alaaji dégg xam-xam am na te olof Njaay def ne fépp fu daan taa heure boo demee da nga fa fekk tepp-tepp te olof Njaay def ne tamit ogg suuf bu daanoo ci kàmbu ñiibuwul mais dafa dellu ci ay mbokkam ñun tey buñ delloo di faj soxla yi incha allah luñ fekkoon suñu maam la. sunguf su xonq sunguf su xonq si ci lan lay dox. boobu mi ngi dox ci wàllu kaaraange alaaji dégg mu nekk juróom-ñaari xay yoo xam ne bokkuñ place bu ñu sax incha allah luy képp ku ko am par lu tuuti lañ ciy joxe nag képp ku ko am lépp lu mu fekk sa yaram ci wàllu liggéey ci wàllu cat ci wàllu def-def dina ko dindi bi Aliou waxoon da nga am protection boo xam ne képp ko dal sa kaw dina ko yëg. bu dee sunguf su verte si. boobu mooy dox ci wàllu wërsëg. boobu tamit dafa am ay ayatu alxuraan yu ñu ko kaasee muy dox ci wàllu wërsëg bu yéemee yéeme bii alaaj dégg ku ko am da ngay tëdd di nelaw say mbir di dox kenn mënu ci dara tëddal di nelaw say mbir di dox saahiran aw baatinan ñëpp naan waaw kii moom fu muy jëlee fekk la ngay laal ci suuf la waaye nag euh, alaaj dégg man man man léegi toll naa foo xam ne neexalu ma neexalu ma ñaan ci kenn neexalu ma ci sàmm neexalu ma parce que li ma yor moo wér dama yor lu wér yàlla xamal ma ne guddi yi ma toll soxla yi ci man lay fajoo moo tax nag ku bëgg faju ko ajo ñëwal ku bëgg leneen damal seeti feneen bu fekkee ki bëgg am doom nag doom jafe ko waaw loolu alaaji dégg defe naa ne boo duggee ci àllu saalum bi laajte laajte ko defe naa ne dañ la ci wax ay résultats yoo xam ne yàlla suturaal na ma ci ah. muy jigéen ju taxaw mënoo am doom ah. sëy bay bëgg dee yàlla joxu la doom hmm. doom nag yàlla moo koy joxe mais am na ay tegtal yu nekk ci biir alquran ak ay reen ak ay sunguf yoo xam ne danañ koy liggéey képp kuñ ko jox boo taxawoon fukki at bi yàlla lay waxooti bu boo ko amee da nga am doom kenn mënu ci dara. ñu waxtaanee papier ak séjour ku bëgg papier. <laughs> man li may ñaan yàlla di koy nangu alaaj dégg papier moo ci gën a ndaw. man man dama wuteeg ñu baree bari parce que man nit kurus laa damay damay damay damay wir de ismu laay lax sam damay wiir de turu yàlla. turu yàlla na mënoo koo liggéey ba pare soxla di dugg sa nopp bi yàlla di koy delloo man tane man kaana lillaahi kaana laaw law heure buy nit ñi di nelaw man heure boobu lay téye sama kuréel di sabbal yàlla ci ay turam moo tax képp ku jëflanteeg man kontaan ci wàllu kayitak ak loolu du ma fi nekk naan def naa ci lii wala def naa ci laa. aji Sarr plainte na Sonko mais tey bii yoon Atepa Goudiaby la plainte. waaw Adji saar moom defe naa ne euh, man Adji Sarr bëgguma sax di wax ci mbiram. parce que nit koo xam nitu aji Sarr nitu finna la Adji Sarr moom defe naa ne euh, nit la koo xam ne bu amoon ay mbokk wala ay mbokkam buñ ko mënoon a waxal danañ ko waxal mu génn ci yéem yow pelanti yoo xam ne ci ay fitna lay mujj pelanti yoo xam ne ci ay naxa xanang la ah pelanti yoo xam ne du mujj fenn ci lu ci lu am njëriñ Adji Sarr na dimbale sénégalais yi aji Sarr na dimbale nit ñi Adji Sarr nit ñi sonn nañ damal seeti leneen lo parce que caaxaan na ba yàq àddunaam xale bu ndaw nekk sa buntu àdduna mënatoo def dara foo nekk sa xel du dal kon aju Sarr nañu dimbale li laay war a suuli ñi ñi dee ci diggante moo ko loolu rek na sëkk biñ ko toppee ba ca biir xam na ay tappale la man boobu laa raxaw si ci ay mbiram. bokk na ci li ngay liggéey mooy nit koo xamante ni dañu koo jékku ci gàllaaj toj liggéey toj liggéey laa bëggoon ñu waxtaanee ko waaw alaaji dégg loolu dañ koy defee xam du ci ay liggéey yu fa yu bëri yoo xam ne danañ koy defee ci leket leket ba buñ ci bindee lañ ciy bind jox ko ko moom mu sangoo ko fañ koy na duñ ko wax ci tele lañ koy lañ koy booleeg tamit duñ ko wax ci tele waaye loolu képp kuñ liggéey ba yow mënatoo am dara sey mbir tëju sa yaram di diis ah mu lay mu lay muy def manifester yoo xam ne sa yaram pour nga nelaw problème la incha allah bi yi laay waqooti boo ma seet see dinaa toj liggéey ba te dinaa la defal loo xam ne képp ku la liggéey ti dee. sëñ bi yi nekk ci ndoxum géej bëggoon naa nga ñëw ci. waaw ndoxu géej moom defe naa ne géej sax laay wax géej ci boppam léppam secret la ci kaw nag boo ko xamee defe naa ne yàlla lim ci tënk ci ay secret bu ko doomu aadama yi xamoon li ci secret bi ci gën a ndaw te gën cee siiw mooy sangu ca ndox ma waaye bëri na bëri na li ci ne. ca suusaak ca yeneen ak yeneen yaa xam ne yëpp ay njëriñ la <laughs> loolu dañ ciy def lu yéeme alaaji dégg mais nag man man dafa am ñu ma topp ni ñu ma topp may lépp lu ma wax bu ma xëyee gis ko ci benn télé wala ma gis ko ci benn sit ci wàllu secret mais du foofu secret dañ koy jàng secret dañ koy tarbiyu secret dañ ciy joxe ndigal waaye daal alaaji dégg képp ku am jafe-jafe jafe-jafe àdduna jafe-jafe nu mu man di toll mm-hmm. bi xaalilaay waqatu bu ma ko xoolee ba dugg ci mm-hmm. booba jafe-jafe yàlla dina ko faj bu dee jigéen ku mënta am jëkkër nag waaw loolu moo gën a ndaw alaaji dégg damal côté Tamba bi nga xam ne def naa fa lu ne ci côté boobu mm-hmm. bëri na jigéen ñoo xam ne tey ñi ngi seen néegi sëy yi ginnaaw ba leen ba bañ sante yàlla man lañ ciy teg parce que yàlla du joxe loxo loxo dafay jaarale ci diw mu jaarale ci diw man nag ñaan gii may ñaan yàlla di ma ciy may ay résultat ma ko koy sante di ñaan mu yokk incha allah sëriñ bi yaakaar naa li mu waxtaanee am na solo te bëri na njëriñ damay ñëw ak yow ci àdduna ak jamono ni muy doxee góor ñi ñu bëree bëree bari mënatuñoo bégal seen jabar ngir gaaw a daanu secret néew kàttan. waa néew kàttan nag léegi defe naa ne mooy feebaru mooy feebaru réew mi ni mu nekkee feebaru réew mi euh, lekk gi kenn xamatul looy lekk léegi loolu nag moo waral. te tubaab yi mënuñ koo faj léegi nag loolu mooy tax faaw ñi reculer dellu ci garab yu mag ñi tey boo demee Saalum bëri na ñoo xam ne buñ la waxee seeni aj ne ñu ngi ngénte nga ne déedéet alaaji dégg teguñ ko fenn nag fu li fi mag ñi bàyyoon ci ren ak sunguf ak ak ak camp ci loora lañ ko def gis nga camp bii ngay gis bii ngay gis alaaji dégg lii képp ku ko am def ko camp di koy naan guddi ak bëccëg incha allah lépp loo bëgg a bëggal sa soxna ci wàllu lal bi danga ko ci bigal camp bii yombut li ma koy joxe yombut ah. neexalu ma ci sàmm neexalu ma ci dem waaye képp ku ko am ah. danga nga da nga sëya sëy sëy ba kontaan incha allah. sëriñ bi bu dee nit ku feebar maanaam hémorroïde ak ndoxum siti dégg nañ yàlla am na lu la ci may. alaaji dégg ñun boo demee Kaffrine ci suñ kër pàppa ah. mooy sëriñ boo xam ne kilinik la tabax ci këram. hôpital bi nekk Kaffrine hôpital régional bi dañuy dem ba nit jaaxal leen ba amatuñ ci benn pexe ñi ñi ñi ñi ñi yëpp ko seen ambulance indil ko ko loolu foofu rek nga koy gis muy faj mbooleem xeeti jàngoro kon ñi ni tamit li ne ci ñun moo ko def ci ñun ba bépp jàngoro la ñuy faj xataa jàngoro bu dul doomu aadama da ko judduwaale waaye lu dul loolu ay jàmbur yooyu la ñuy bokk a bokk a faj ko incha allah bi yàlla wax wati. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV. tàggatoo bi mooy maa ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp. di gërëm samay client yi may safoo. di may jox seen i dërëm di may ñaanloo yàlla. yal na yàlla dafa leen faju aajo incha allah bi yàlla wax wati yéen itam yàlla dafa leen faju aajo. yàlla yokku leen ci zahir yokku leen ci baatin. yàlla gën a barkeel seen liggéey. sa baat bi xam naa ne xaw na dee waaye lépp njëriñ la ndax yow foo gis lu baax rek da ngay dem fexe wane ko kon ñu ngi lay ñaanal ci loolu yàlla defal la jàmm alaaji Medoune yàlla defal leen jàmm yàlla yokk leen euh, seen liggéey yàlla gën koo barkeel. alaaji euh, dégg daal li may tàggoo mooy képp ku bëggut faju aajo bu ma woo képp ku bëggut sa soxla faju bu ma woo képp ku bëggut ma gis la ci wàllu seet ak sa xaara bu ma woo bi hawlillahi wa quwwati waxoo ci de <laughs> du ma ci wax lii moom lii moom du ma ci wax moom sungu ma ne luy njaqali moom du ma ci kanaa ma ma comp ci sunguf bii nga xam ne ku nit guddi guddi sonal ku rab sonal ku cat sonal boo ko sudoo mu tàqale yow sunguf bii rek laa ciy wax nag ñetti sunguf ak ci biir yu bokkul jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi sëriñ Ahmed xalifa waxtaan muy waxtaan wu bëri njariñ ay ci numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di ko jot mbokk doon topp di ñu siifur ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci daraja yi Muhammad Rasulullah